jërë ngeen jëf mbokk téléspectateurs yu télévision Futur Média daleen ak jàmm ci jotaayu xibaar yi li ci gën a fës te ñu nam koo jukki bokk na ci soble si nga xam ne itam duggaat na ci marché wi jàppaleen ne euh, ñi koy jaay ak itam jëndkat yi ci les jamono mbégte la ñu am waaye jàppaleen ne euh, kilogramme bi mi ngi ci euh, ñaar téeméer suñu ay ndaw itam doxantu nañu ba marché bu wakaam gëstuwaat li nga xam ne itam moom moo di njëg li jàppaleen ne grossiste yi nag ñu ngi koy amee ci ñeenti junni di ko jaayee ñeenti junni ak ñaar téeméer ñi nga xam ne itam ñoom ñoo di clients yi gis nañ ne lu ni mel dafa rek daal di euh, cher daañu wax euh, ci leneen mu ñeel njàng mi ak njàngale mi fii ci réew bu Sénégal ñoom ñi le euh, chargé de cours la ñu rek di seen bopp ñu ngi doon amal aw doxub ñaxtu ca buntu Fastef la ñuy sàkku itam bokk nañu daal di leen di tàggat ak léegi ñu sàkku lu ni mel toll na ci fukki at leneen itam ci loo xamante ni àdd nañ ci muy quota wi nga xam ne itam moom lañ leen jagleel te ñu jàpp ne dafa néew xibaar ci seex yi nga xam ne dañoo juddu te taqaloo jàpp leen itam opéré nañu leen ca hôpital Albert Fann mu nekk opération boo xamante nii nag amal nañu ko ci jàmm ak salaam bi la yoon eh, nekk ñaareel bi nga xam ne nag hôpital Albert Royer mi ngi amal lu ni eh, mel xam ngeen ne amaloon na ko ci atum 2020 ñi nga xam ne eh, ñoom ñu yëngu ci wàllu kër docteur janoo nañ ak way taskatu xibaar yi léegi léegi daañ ko faram fàccee ginnaaw bàkk bi lay doon ñu nuyuwaat leen ci gën gi nuyu xibaar yi door ko na nga xam ne itam noonu la ñu ko junjee woon jàpp leen ne euh, commerçant yi ak itam clients yi ci la jamono am nañ mbégte ci soble wi nga xam ne itam duggaat na ci jaba yi waaye jàpp leen ne benn kilogramme bi mi ngi ci li nga xam ne euh, moom moo di euh, ñaar téeméer ñu bëri ci clients yi itam gis ne lu ni mel jiggi na dayo Cheikh Anta Diop ak a diwaan bu Thiès reportage ñu ngi gis ni ñu ngi wàcce ay saaku soble fii ci marché central bu Thiès jamono yi de commerçant yu mag yi ak détaillants yi ñoom ñii de ñu ngi commencé seen xel di daal jaaykat yi ñu fekk ci biir marché bi nee nañ gis soble baa ngi ñëw ba tax na njëg li nga xamante ne demoon na ba ñaar téeméer ak ñeent fukk wàññeeku na. waaw soble mu ngi am de mais moom ñu koy jaayee 1000 francs saako bi bi ñu ngi koy saako 25 kilo. waaw waaw sant yàlla mais kilo yi moom bala ngay jaay ngay wax ba sonn moom. nu ñuy jaay 1000 nu ñuy jaay 900 man mii sax lay jaay 900 lay jaay man waaw pour dimbale njaboot quoi. Euh, maa ngi ko jënd euh, vingt et soxna si moom de nee na daa wër marché bi ba sonn. waaye njëg li ba léegi dafa cher te metti na lool ci borom kër yi. njëgu soble bi kay wàccagul ba léegi xanaa metti rek ci ñun waaw te bu ñu sañoon tamit ñu wàññi ko man nag dama xamul lan mooy problème bi mais metti na daal ci ménage bi actuellement. bu njëkk ba kay boo amoon quatre cent sax ba trois cent cinquante sax. nga am kilo soble mais maintenant mille francs ba léeg-léeg sax day xaw a ëpp noonu. loolee tax nag opérateurs yi ak producteurs yi ci bëri nag commerçant yu mag yi doon daje fii ci diwaanu cees ci centre forêt ngir xayma xool yan pexe la ñu mën a jël ngir soble bi mën a dugg si si réew mi. beneen bés mooy ñu ngi jublu ci ay événement yaa ngi jublu 15 août yaa ngi jublu ci euh, màggal Touba yaa ngi jublu ci gàmmu te yooyu yëpp bu ci nekk dafay soxla bu baax approvisionnement produit oño bi ci marché bi. moo tax bi ñu amee loolu ñun tamit ñu waxtaan suñ bi ni comme état bi moom ma ngi def ay pexeem mais ñun duñ leen xaar. li ñu daan def ba indi soble bi ñun dañuy continuer def noonu. Sénégal li ñu soxla ci marché bi toll na ci fanweeri junniy tonnes ci soble. waaye jamono yi de juróom-ñaari junniy tonnes rek la ñu indeegul. ngir askan wi man cee jàppandi. Euh, Cheikh Anta Diop ñu dem ca marché bu Wakaam suñu ay ndaw itam doxantu nañu fa ngir daal di gis ñi nga xam ne itam ñoom ñoo di euh, grossiste yi la ñu xam ne euh, moom moo di nag ñeenti junni la ñu jëndee li nga xam ne nag moom moo di saak bi bu ko defee ñu jaayee ko ñeenti junni ak ñaar téeméer waaye jàpp leen ne clients yi nag gis ne lu ni mel dafa cher lool Aminata Mbaare saw ak Modou Diop ñoo fa doxantu woon. daanaka foo tourné ci marché bu Wakaam daa seen ay ci yenn bërëb yi sax ay camion yu taxaw di wàcce ay saaku soble yu jóge bitim réew. pour le diggante démb ak tey moom fi mu ne macha allah soble Hollande bi dugg na ci dëkk bi bu baax baax a baax mais nag yombul. kilo bi est ce noonu. kilo bi moom mu ngi doon jaay 1200 mais léegi fi mu ne ñu ngi jaay 1000 francs. parce que ñu ngi jaay saag yi 23000 ñu koy jaay nii quoi. waaw loolu lañ koy loolu lañ jaay borom bitig ñii di détaillé ko loolu lañ koy ñu ngi jëndee saako bi francs di ko jaay vingt et un mille vingt mille cinq cent noonu en bi nga xam ne dañ koy bayee bitim réew ñu mën koo gis ci marché bi lee li ni mel nag soxna si nee na gëjoon na ko gis moo taxoon sax kilo kilogramme soble bi 1200 la ko doon jëndee. soble de laa doon jënd waaye wàcc na tey ñu ngi ko jaay kilo bi 1000 francs dafa ni 1200 la doon jar marché bi metti na. metti na torop torop torop. waaye teewul ñaari soxna yi di wax jafe-jafe yi ñuy am ngir jot ci kilogramme soble boobule. dama ko jënd léegi lii war laa jënd 500 par rapport ak temps yi passé 1200 la doon jar mais ni ma duggee si biir marché bi sax loolu lañ wax moo tax ma génn ba fii laajte mu ne ma libre bi 500 ma am fitu jënd ko mais gëj naa jënd soble ay mbuus 100 francs rek laa doon jënd di ko safalee. kilo soble 1400 lañ koy jàll ko 1200 sans dépend. mais metti na daal nga bëgg ci jaay ndekki te mburu bu ne yaa ngi koy jaay ak soosam 200 imagine loolu koo doon jaay 200 nga xëy a xëy ne ko yokk naa 250 xam nga loolu betteel boobu dafa doy waar. lii nag di loo xam ni consommateur yi ak jaaykat yi lu ñu bëggoon la waaye ñoom liñ ci ragal mooy li ñu andi ndaxam dina doy fii ak événement yii di passé ndaxte ñu ngi jublu ci màggal te ñu jàpp ni demande bi day bëre loolu ci marché bi la. aywa ñu wax itam ci njanaaw yi ngir rek euh, daal di euh, moyu li nga xam ne da leen di faat jëmbal itam lépp lu euh, ñeel wàll wi aw initiative boo xamante ni daal nañuy jël ñenn suñu ci yëngu daal leen tàggat ci lu bëri ci ay technique yoo xamante ni bu ko defee itam daañu wëyal lu ni mel ñoom ñooñu nag ñu nga soqe ko ci région yu Louga maatam ak itam Kaffrine Mamadou Moustapha Ndiaye Sidi Thiam ñoo teewoon boobu la jotaay. ngir gën a ñoŋal secteur agricole jàppale ñu ci yëngu bon man cee gis seen bopp te duñ am benn gàllankoor bokk na ci li tax projet Covid 19 bu PASA Lumacaf daal di tàggat ñu ciy yëngu ñoom ñooñu sax bàyyeekoo ci région yi di Louga ak Kaffrine. Euh, dooleel jigéen ñi surtout rawatina bénéficiaires yi pour que ni ñuy doxalee seen élevage ñu gën ci gis seen bopp. man di ci lekk ba di ci mën di jaay. Oh. di ci def yeneen di ci defaat yeneen activité di ci jënd leneen lu ci bokk oh. loolu moo tax a jóg euh, atelier bi moo tax a jóg pour renforcer daal bénéficiaires yi ñuy ciblé fii. dafa am ñoo xam ne dañ leen tànnoon ci ay critères yu wér yoo xamante ne bii ci ci agriculture lañ nekkoon ci yëngatu ñi seen jëkkër dafa gaañ ñi dañoo néew doole et cetera et cetera ñu ciblé woon leen am ay retard nag ci exécution bi. ba tey jii yàlla def na euh, bailleur de fonds yi euh, mettre à la disposition du gouvernement Sénégal donc loolu nga xamante moom la ñu demandé woon léegi ñu war a démarrer activité projet c bu PAZA Lumacaf di xamle ne formation bi lu am solo la ndax fii ci Sénégal bari na ci ñoo xam ne nii ndawal gi jóge ci njanaaw moom la ñuy jëfandikoo. ñëpp xam nañ ne poulailler am na benn importance bu am doole ci Sénégal. parce que day participer ci alimentation wu Sénégalais yi par habitant treize pour cent et au niveau national environ quarante quatre pour cent loolu day participer ci souveraineté alimentaire ak sécurité alimentaire bi nga xamante ne moom la Sénégal bëgg jaarale ko ci plan Sénégal émergent te secteurs yëpp di ko doxal muy ministère de l' agriculture ministère de l' élevage bi nga xam ne moo ñuy accompagner tey ak yeneen secteurs yi. ñi nga xam ne ñoom lañ doon tàggat. bu buñ paree dana leen jàppale ci wàllu équipement ngir ñu mën a taxawal seeni poulailler dolli ci buñ demee ci seeni gox-goxaat dina nekk ay relais ngir mën a tàggataat seen yeneen i moroom. mbokk yéen a ngi fàttaliku euh, Bassirou fay mooy étudiant ba ñu boomoon ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ginnaaw jàmmarloo diggante étudiant ak itam ñi nga xam ne nag euh, ñoom ñoo di way takk der yi euh, juróom-ñeenti at ginnaaw bi ñu ko boomee ñi nga xam ne ñoom ñoo di ay naataangoom woon nañ foofee amali ñaan jëmale ci jëmm joojee nga xam ne nag moom moo fa ko woon ci université Cheikh Anta la doon xewee ñu si daan reportage. tey jilee di bésub ñaan ay kuréel suñu yor seen ak loxo ngir wéy di fàttaliku ki nga xam ne seen ñooñu la woon Bassirou Faye di wane itam ne am mi ngi des ba tey ci li nga xam ne nag moom moo di xol yi. paiement bourse bu dem ba la 14 mu loolu la doon réclamé bañ boom ko ci mu nekk li nga xam ne tey képp kuy étudiant. dalay ker bu dana métti na la waaye ker bu di bés bi yegsee tamit boo koy fàttale ko tamit dootu luy neex du fàttale ko bu neex waaye dañ koy def ngir fàttale ko ngir feddali kóllëre bi ñuy bu ñuy léewoon ak moom ah, di ñaan yàlla kaamil yi ñu ko ci wàcceel yàlla jotal ko yool bi ci darjaam sallallahu alayhi wa sallam ancien policier yi nga xam ne itam daanoon nañu ko ci fukki ati kaso te cour d'appel bu Ndakaar amaloon lu ni mel mu ñeel ko àddina Bassirou Faye jamono yi nag daal dina génn ci prison bi étudiant yi li di ñu wax ne loolee mbirum yoon la justice moo xam li tax mu def ko ñu ngi koy bàyyee noonu mais li li ëpp solo mooy bakkanu Bassirou fay moo gën loolu lépp bakkanu Bassirou fay moo moo gëpp solo yooyu noonu ah li ñuy lancer autorité bi mooy nañ jël seen responsabilité ba lu mel nii dootu fi amati ba lu mel nii dootu fi amati parce que moo ëpp solo ñun ci loolu la ñuy insister bien vrai que am na ay acquis yoo xam ne après étudiant bi am na ko mais bu fekkee ne étudiant bi dana am acquis yoo xam ne day perte bakkan ngi soog ci am. te kon ça veut dire que mënoon na ko am bien avant mi perte bakkan. mu doonoon fukki fan ak ñeent ci weeru u boobaak léegi toll na ci juróom-ñeenti at Basirou ñu boomoon ko ginnaaw itam aw jàmmaarloo bu amoon ci diggante way takk der yi ak itam ñi nga xam ne ñoom ñoo di étudiants yi. li waraloon Basirou fay tey dem mu ngi fi ba léegi amaan na am na ay jéego yoo xam ne defoon nañ ko ci atum bi mu amee ba léegi gisoon nañu daan nañ fay au li tard la cinq mais mois yu ñu weesu nii gis nañ ne paiement yi day retard trop tey la quatorze maa ngi wax mois bi wax ak yow nii. xam na ñoo xam ne jotaguñ seen bourse je lance un appel euh, ñi nga xam ne ñoo ngànk université chante Anta Diop muy autorité COUD yi muy autorité rectorat bi que ni tey seen i doom jaaxle nañ depuis juin ba léegi campus a ngi tëj depuis juin ba léegi étudiant bi jàngiwul depuis juin ba léegi njàng mi kaw mi ci Sénégal taxaw na te ñu ñooy ñu ñooy ñun ñooy réew bi tey bu fekkee ne université Anta Diop Dakar depuis juin ba léegi jànguñ jot na dëkk bi tiit. ginnaaw bi ñaan wi nga xam ne itam amal nañu ko fii ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru étudiants yi di daañu wutali fa nga xam ne nag moom moo di diwaan bu Njaareem foofee la Basiiru fekk baax daañ fa dem ngir rek màggal bés bi bokk ko itam ak njabootam bésu fukki fan ak ñeent bile. yàlla na ko sunu borom àttee ci li nga xam ne moom moo di yërmandeem dañuy des ba tey ci lu soxal wàllu njàng ak njàng ci mim réew les chargés de cours la ñu dippee seen bopp ñoom itam ni ki tey jilee taxaw nañu ca buntu Pastef ngir rek wane li nga xam ne nag moom moo di seen ak mer la ñu sàkku bokk na ci wàllu tàggat ndax fukki at ginnaaw bi ñu ngi daw ci lu ni mel lu soxal itam quota yi nga xam ne moom lañ leen jagleel dañu jàpp ne dafa tuut lool Pape Fara ñi ngi jaafara ba Gervais Yao ñoo fekke woon boobu leen doxu ñaxtu ñoom ñi mer bu futt la ñu def ci ñi nga xam ne ñoo jiite njàng mi fii ci réew mi ñoom ñooy chargé de cours yi jàngalekat yooyu ay at a ngi ñuy topp ngir ñu tàggat leen bu ko defee ñu mën a def bu baax seen métier. dañoo seetlu ni chargé de cour yi mooy ñi nga xamante ni ci daara yi lalu yi lañ nekkoon ñu bu leen ci daara yi diggu dóomi dañ leen a doy dal ñàkkal leen fayda ñoom ñoo leen yóbboon ci daara yi kawe yi ni leen ñaari at dinañ leen former waaye ci ñun am na ñu xamante ni fukki at a ngi nii ñuy toog di xaar formation duñ ci yëy duñ ci yàbbi ci ay tappale la ñu nekk bu yàggul gis nañ ñu génne ab bataaxal ni dañuy former ñu ñu jël daaw mooy les 5000 enseignants loolu lu baax la ndax suñuy nawle lañ waaye nag ku mën a jël nit daaw di ko fermer rek waaye ay layowéen nga mën a former ñi nga xamante ni fukki at ñu ngi bëgg formation quota bu faible lañ leen jox ci 3000 enseignants li ñu bëgg daal mooy ñu gin leen a gëdd daal. ëpp nañ 3000 ñetti junni ëpp nañ ko te quota bi ñu génne di ko lawti lawtee naan chargé de cours yi ñaar fukki chargé de cours nekkuñ ci. ñu def ko ñaari quota ndax formation bi mën ngaa toog fii. def ko waaye mën ngaa def formation à distance maanaam nga nekk sa classe di jàngal say ndongo bu ngoon jotee ñu former la ci xare lay bees yi. dàq ñu amal ab doxu ñaxtu boo xam ne ñëpp ñoo ciy bokk. naka noonu sax dem ba def grève xiifal. bañuñu ko waxuma la marché sax waaye lépp lu nga xamante ne combat bi laaj na ko marché nationale ak grève ak lépp wala rentrée bi nga xamante ne moom mooy profiler wu sax à l'horizon boo moytuwul danañ ko boycotter parce que nag trop c'est trop il faut que l'État prenne ses engagements et assume ses responsabilités. bi pa lu ñu gis rek nañ xam ne lépp bu jaree grève de la faim dinañ ko def su jaree brassard rouge ko def. su jaree rentrée bii di ñëw ñu tàngalaat ko ba mu tàng jër dinañ ko def incha allah. chargé de cour yooyu nag fi mu toll nii danoo taxaw tem ngir ñu tàggat leen ci ñaari at yi ñu ngi sax di xoqatal ne ouverture classe yi di ñëw dinañ ko saboté bu dee fajaluñ leen seen i jafe-jafe. bokk na ci la mu leen doon junj bi ñu door yi la jotaayu xibaar wàllu wér-gu-yaram lu yeesa ci seex yi nga xam ne itam dañoo juddoon taqaloo jàppale ne lu soxal wàllu opération bi amal nañu ko euh, ca hôpital Albert bu euh, Fann ci anam bu mucc ayib jàppaleen ne euh, chirurgie médicale wu ni moo nekk ñaareel bi yoon hôpital Albert Royer di amal bu ngeen di fàttaliku atum 2020 daal nañu amaloon nañu ko foofee opération boobu itam càmbar nañu ko Corombaar Ndiaye ak Alioune Diagne reportage beneen taxawaay bu am solo bu personnel médical bu hôpital Albert Royer daldi di yi ñii daldi di ñaari seex yoo xamante ne dañoo juddoon taqaloo bi sax di ñaareel bi yile boroom xam-xam def ko ginnaaw ba ñu defoon ca atum 2020. suñu naataangoo euh, anesthésistes yi ñoom def nañu seen liggéey si benn waxtoo genn wàll. ñun si lañu ñëw def opération bi ci benn waxtu ak ñaar fukki simili booy xool euh, opération bi yëpp ci ñetti waxtu lay lay lay lay lay duré. mu doonoon nag mbir mu gudd yoon ndax jafe-jafe bi ñu ngi ko nemmeeku euh, boobu seen jur bu jigéen mu ngi ëmb baam ñeenti weer. jàngoro bi euh, maanaam. ñi ngi ko gis bi yaayu xale yi nekkee jigéenu wérul ba am ñeenti weer waaw ndax euh, hôpitalu Kër masaar ñoom ñoo def benn rajo bi nga xam ne bu ñuy wax échographie moom moo gis jàngoro bi euh, bi ñu gisee jàngoro bi si lañu yebal yaay ji mu dem hôpital Dalal Jàmm muy hôpital bi nga xam ni moom moo sut hôpitalu Kër Massar bi euh, bi mu demee foofu si la ko Euh, maanaam docteur yi nekk foofu topp euh, di ko gis ba ba muy mucc ci ñeenti fan ci weeru saatumbar ci at bi ñu weesu juróomi fan ginnaaw bi ñu amalee bile opération séexiile ñu ngi ci jàmm ñu leen opéré ba pare comme euh, lu xaw a diis la dañ leen bàyyi woon ci réanimation bi biir bloc bi mu am médecin bu nekk tout le temps foofu pendant ñaari fan ak infirmière donc di surveiller di vérifier sur le plan clinique maanaam nu xale yi def di jël seen ay euh, constante di leen examiner di xool pour mën a euh, xool ndax problème amul ñu mën ci anticiper di leen jàllale tamit seen ay médicament mooy prescription bi anesthésiste yi defoon juste après chirurgie di jàllale waale prescription yooyu pendant deux jours. bàyyi nañ leen aussi ñuy lekk ak seen gémmiñ depuis lendemain intervention bi parce que amul d'après bi ñu leen gisee woon lenn lu taxoon ñu bañ ko def. ñoom ñi gane si àddina ñeenti fan ci weeru septembre atum 2022 ñoom sax ci césarienne la lañu juddoo. fi mu tollu tembe seenuk dundu jëlaat beneen taxawaay ci geneen wàll nag ñi nga xamante ne ñooy liggéeyee ci hôpital Albert waaye di sàkku rek ci kilifa yi jafe-jafe gi ñu am ci wàllum ndox ñu dimbali leen ci bu baax a baax ndax lu ni mel bokk na ci liy gàllankoor liggéeyu l'hôpital bi Euh, forum social sénégalais wax na ci fitna wa nga xam ne nag moom moo am ca réew bu euh, Niger la mu xamle moom moo di lépp lu soxal wàllu intervention militaire daal dinañ koy euh, dàq bu ñu sukkandikoo ci ki nga xam ne moom moo di coordonnateur bi moom Mamadou Mignane Diouf mi jàpp nag ci yële jamono nag la ñu war a def bokk na ci toog pincoo waxtaan ay kàddoom alxasaan Ba moo ko tàttaan CEDEAO ndawalu euh, médiateur euh, jiitu lisam yi fa nekk ñi jóge Niger Nigeria ak yooyu nañ ci dugal aussi xëy na église bi bi nekk biir euh, Niger xool itam am na ay leaders société civile yoo xamante ni mën nañ leen ci boole mu am benn comité boo xamante ni boobu comité de médiation multi acteur lay doon ñu xool lu ñuy def ba waxtaan ak junte militaire mais waxtaan boobu itam xëy na kenn mënu ko def ci force. parce que boo ko defee ci force tey yow fa ay armée mën na am non seulement pas ñu sacrifier dundu Bazoum ak jabaram ak njobootam mais itam nga ubbi bunt bu rëy boo xamante ni ñi fi nekk ci ay mouvement terroriste. ñi nekk boo ko Haram ñi nekk état islamique euh, Sahel. ak yeneen groupement yi fi nekk ñëpp xëy na mën nañ ci profité dugg ci biir Sahel. defaat noo xamante ni xëy na xaaruñ ci woon nañu fexe waxtaan. am ñaari objectif fi ñu toll benn bi ma waxaat ko mooy nañ libérer baso pour man daal loolu mu waroon nekk priorité que di bëgg a yóbbu ay force militaires d'autant plus d'ailleurs que ci suba rek am na ñu ma fa wax ne bu Sénégal ne ay ndaw Sénégal yi fi nekk dañ dal seen kaw bu Nigéria yoonee ay ndaw Nigéria yi fa nekk ci biir Niger dañ dal seen kaw bu Côte d'Ivoire yoonee ay ndaw ñu def même chose donc yooyu yëpp daal pour man da doon loo xamante ni kenn du xam ay googu fan lay yem aywa mbokk yi ñu àddu ci wàllu euh, tàggat yaram waxtaanee wàllu athlétisme ak mujjanteelu journée euh, bu saison 2022 2023 mu ñeel euh, championnat nationaux d' athlétisme mu mel ni itam lenn ci ay ñooñ yooyu la édite itam dëggalaat nañu bu baax a baax seen bopp ci ay raaya yoo xamante ni itam jot nañu ko amee rawatina catégorie senior yi mu nekk ay performance yoo xamante ni itam journée aw mbégte ci directeur technique national wi nga xam ne itam ci la jamono lam xamle moom moo di dina gën a dëggalaat boppam mu ñeel boobule cadence Cheikh Sadbou Diarra ak Amadou Ba reportage. Dakar wéy di des ci boppu athlétisme bu Sénégal ay athlètam ci njiitalu ñi jëlee médaille ca Jeux de la francophonie ñoo jël épreuve yëpp yi amoon ca championnat nationaux ci catégorie senior yi. même si que nekkul fii ko mais bon en tout nañ ci daal vraiment euh, ñun ñu ngi daw 45 mais tey 46 lañ daw mais vraiment kontaan nañ ci. le fait que jël nañu prix bi champion du Sénégal rek vraiment loolu rek doy na ko dama kontaan tellement ba xam ne parce a ko def dama macha allah di ñaan yàlla affaire yi gën a yokk rek gën a ko ñu gën ma dégg fu kawe fu gën a kawe fii incha allah. contentement ñëwaat dawaat au niveau national parce que ça fait très longtemps que j'ai pas pu euh, défendre ce titre là parce que depuis 2019 laa ko bëgg daw. mais sant yàlla quoi. championnat nationaux yi di njeexitalu saison. bu mucc ayib. Eh, gis nañ ne 383 bokk nañ ci compétition bi te dañ ñu ngi leen di jëlee ci 14 régions yi nekk Sénégal waaye bu ñu xoolee tamit euh, performance yu ñu def tey dañuy constater ne de performance yu am importance au niveau africain parce que ñi nga xamante ne demoon nañ francophonie ba am fa ay médailles sax ñëw nañ ba nga xamante ne yéegal nañ niveau championnat nationaux yi mu loo xam ne ñu ngi koy rafetlu li des nag moom mooy am njàngat ci résultat yu ñu am ba xool ne yan ci yan pexe la ñuy entamer vraiment saison bi di ñëw. li gën a jege di championnat du monde yu ren jii ca Hongrie fa Sénégal am yaakaar bu bëri ci ñaari athlètes. di ko fa teewal. François de mu ngi actuellement douzième ci euh, euh, bilan wu cent dix mètres au niveau mondial donc ñu ngi xaar ci moom mu passé cap premier tour su mënee dem demi final danañ ci kontaan lool su mënee dem final tamit muy loo xamante ni guleet ci sénégalais boo xamante ni dem na si cent dix mètres et en niveau de finale. maintenant pour Sangoné qualifié na parce que moom mooy champion d'Afrique moo mën ci Afrique léegi li moom moom mooy mu def meilleure performance de la saison. athlétisme sénégalais bi ak staram bii di Louis François Mendy doon. ñu ñuy xaarandi ca ngonjoo yu ñuy amal ca Budapest 19 ba 27 ci weeru ut bii Cheikh Sadbou ñu dem ci bët gànnaar bu réew bu euh, Sénégal waxtaanee wàllu Viet euh, va daaw jàppale ni itam lenn ci lu ñu fa amoon mu ñeel aw jongante ngir rek euh, daldi tàggat ñi nga xam ne ñoom ñoo di meilleurs athlètes yi jàppale ne fukk ak ñaar ci ay club ñoom ñoo daal di participer ci mbir mu ni mel Awa Niang moom mooy présidente bu Ligue Nord moom itam mi ngi sàkku ci autorité yi ñu gën leen a jëmmal bàyyi leen xel bu baax a baax ñu teewlu ay kàddoom ci micro Ousseynou Diop. kay jàppee xeexu ndaw ñi comme day méngoo ak championnat boo xam ne si suñu biir la ñuy tànnee ñi gën a mën nu yóbbu leen nu demaat si beneen daje boolewaat région yi si Sénégal yëpp nu dajewaat foofu noonu euh, à Dakar bu nu paree si loolu nu yóbbuwaat leen nu dem championnat du monde. si si si championnat yi rek laay njëkkee donc jafe-jafe yi mooy léeg-léeg dañuy am sax euh, problèmes pour bu nu euh, bu nu choisir suñu ay athlètes pour nu génn bitim réew défendre suñu couleur pays donc tout le temps dañuy am jafe-jafe pour euh, passer leen ay billets billets d'avion donc si loolu noonu ñu ngi demander aux autorités de Saint-Louis nu jéem euh, dimbale ndaw yi ci côté arts martiaux yi nekk yi ndaat ndax mën naa ne jàngoro boobu ñun ñëpp ko bokk donc bu nu si dimbalee bu baax dina tax aar bi daan ko yeggale fu mu ci kaw ci kanam aywa ñu waxtaanee wàllu euh, basket mu ñeel qualification euh, pré olympique euh, jàppale ne nag réew Sénégal daal di réussir li nga xam ne nag moom moo di entrée ci bile compétition ginnaaw itam bi mu rek labale pays hôte bi maanaam ki leen dalal di Nigéria match wu ni mel mu mel nag score bi ni leen tëree quatre-vingt-treize maanaam juróom-ñeenti té juróom-ñeent fukk ak ñett jàpp juróom-ñetti fukk ak juróom-ñaar mu mel ni itam sorteem bi di ñëw. askanu euh, alxemes lay doon yemook fukki fan ak euh, juróom-ñaar dina rek laale ak euh, réew bu Mali bu disecteur h GMT jotee maanaam juróomi waxtu. mbokk yi fi la ñu jaar daal di bural jotaayuk xibaar yi dig dajeek direction bu télévision Futur Média 20h lay doon lu mooy loolee way leen des ak programme bu télévision Futur Média jaa ngeen jëf mbokk yi ñu fanaan jàmm.